njëriñu askan wi. ca loolee nga xamante ni nag moom la nar a jublu ci saa si maanaam liggéeyal réew mi ngir askan wi Macky Sall ñu jiital ko def ko ñeenteeli président euh, bu Sénégal waa Thiès nag di sàkku ci ñoom ci moom mu euh, nasaxal assemblée nationale bi maanaam mu tas ko ndaxte nag ko pencum ndaw réew mi Hélène moom bokk ci Benno Yaakaar bu Thiès loolu moo di réaction bu njëkk gannaaw bu Macky Sall prêté serment ñu teewlu ko ci micro suñu naataango Gustave Emmanuel Faye département Thiès gis nañu tumuranke bi mu tumuranke woon ci at yi passé dañoo bëgg nag li ñu jig 2009 euh, muy bennoo am ndam yu rëy jig ñu ci deuxième tour bi bennoo am ndam lu rëy ñu bëgg fas yéene de bennoowaat pour élection législative yi nga xam ne ci lañ jëm lëkkaloo boobu ñu dëgëral ko ni ko président Macky Sall ci boppam waxee fii ci campagne yu deuxième tour bi def benn coalition bu mag boo xam ne dina tax ba majorité bi ñuy ut ci assemblée nationale ñu am ko daa di apaiser dëkk bi ndax ñu mën ko defar ci wàll woowu man di Augustin waxu ko sax waaye man dinaa ci dolli wax ju ndaw parce que taxawaayu yi ñu gis ci fan yi ci ñi nga xam ne ñoom la askan wi wàccee dafa nekk lu tey xel nekk loo xam ne aussi liy tubaab di wax ne amul décence